Senghane Senghor ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. waaw yow nga yor euh, affaire juridique ci RADDHO laaj bu njëkk bi tey Ousmane Sonko euh, déglu nañu ko yow naka nga apprécier dossier Ousmane Sonko bi nga xam ne daaw ba ren mi ngi traîner. waaw xëy na wax ci fond yi bi moom dana xaw a jafe parce que xaw ma li ci biir dossier bi gisuma ko mais wax ci forme bi mooy niñ ko doxalee moom loolu mën naa ko. Mhm. mooy doxalin bi en tout cas bu ñu seetloo mooy bu ren bi ute na ak bi fi amoon mars deux mille vingt et un di juróon coow li ba ay nit faatu ci li muy wone nag mooy autorités bii pa jël nañ les devants mooy teel nañoo jóg dox ci liñ ci war a dox wax ci liñ ci war a dox pour que moom mu mën a wuyu ji tranquillement te coow du am buñ ko dégloo sax moom démb ni mu waxee woo partisan am yi ci dalak yooyu mu wone ne quand am na fuñ ko rassurer parce que rassurer ko mooy cooli bi muy door a jóg ñi ko contre mooy ñi mu jàkkaarlool ci politique ñoo yenu woon yëf yi wax ci lu ne def ci lu ne ba moom mu wone ne vraiment wóolowu leen woolootul mais bi pa gis nañ ne dafa mel ni autorité judiciaire yeeg gendarmerie police dañ ci impliqué wu implication boo xam ne xëy na bokk na ci li ko jox confiance ba mu jàpp ne yëf yi amul lum ci war a ragal ci benn côté bi. Hmm. li may wax noonu yëpp nag bokkul ak li war a xew ci kanamu juge ba li may wax mooy fi mu war a jaar ba yegg ca juge ba. Hmm. alors moo tax mu jóg wuyu ji juge normalement loolu lu normal ci république buy dox la. citoyen bu yaakaar ne dañ la tooñ am nga droit saisir juge porter plainte sa beneen citoyen morom ngeen dem ci kanami juge bi mu atte leen te loolu moo xew digganteem ak Adji Sarr kon buñ mu doxee ni jàmm am ci loolu lu ñuy sant saluer rek la di ko rafetlu. Mhm. d'accord euh, tey euh, gis nañu njiital Pastef Ousmane Sonko ñu bëri surtout ñu nekk ci euh, pouvoir bi jàpp nañ ni euh, Ousmane Sonko moom nitu fitna la de indi violence Euh, te pourtant tey ba mu génnee démb ci sortiwam wax na euh, bëggul gis benn partisan ni sympathisant euh, leader yi nekk ci coalition Yewwi Askan Wi sax wax nañ leen wax na leen ku nekk na nga dem doxi sa soxla bañ a ñëw foofu ci tribunal ba te loolu la ñu gis tey ba mu demee garde du corps sax topp ko ban jàngat nga am ci loolu. waaw loolu liñ ci liñ ciy jàng mooy mooy que am na moom en tout cas ci côté sécurité dalal xel boo xam ne dalal nañ ci xelam ba mu jàpp ne moom war na mën a dem sans soxla ku ko dimbale te loolu jar na lu parce que gendarmerie ak police bi waruñu fee nekkal ñi nekk ci nguur gi dañ fi war a nekkal sénégalais yëpp yemale sénégalais yëpp ci amlante ak yoon ñu traité jaaral la ci traitement bi nga war a jaar ba yegg ci juge bi juge bi tam def liggéeyam te def ko ni ko war a defee xëy na loolu moo tax moom it mu profité ci occasion bi pour wone ne moom nit ki jàmm la bu jàmm rek di am xel di dal amul benn problème pour que mu woote jàmm woote dal te loolu la def démb mooy lu rafet ci deram rafet aussi te gën ci Sénégal. Hmm. Hmm. Euh, gis nañu aussi police bi li mu génnee ci sécurité dëkk bi yëpp ñu daal di koy bari de euh, barricade fu ne ay way takk der nekk fa est-ce que yëpp jar na ko. wax ndax jar ko moom dina xaw a jafe parce que xam nga ñi sécurité dëkk bi ñoo xam lan la ñuy soxla ci doole fan pour régler lan loolu moom mën naa leen ko bàyyee ñoom par contre li ma seetlu moom nga seetlu yow ñëpp seetlu ko mooy dëkk bi yëpp dafa fees ak police ak gendarmerie boo xam ne d'après information yi ñu am ñoo ñëpp du biir Dakar lañ jógee te aussi jëlee nit ñi ci biir Sénégal pour ñu ñëw renforcer si ñi ne fii naam baax na ci benn côté mais aussi mën na andi déséquilibre ci côté sécurité bi ci biir région yi te biir région yi aussi dafa soxla sécurité loolu la léegi nag ñoom ñoo xam yan danger la ñuy pare mais jàpp naa ne daal bu ñu raisonné daal man ci sama sama gis-gis bu gàtt daal jàpp naa ne bu fekkoon ne mën nañoo am si yeneen solution yu dut yi moo gënoon hmm. moo gën day mel ni sax xaw a tiitalaate te xaw ma kan lañ fi war a tiital. bien sûr <laughs> euh, monsieur Senghor gis nañu itam pouvoir bi le plus souvent euh, day utiliser justice ngir mu éliminer ay opposants euh, bañ leen terale leen ñu dem ci ay élections cas yi bëri na fi biñ koy lim duñ ci jug lan moo waral loolu. waaw parce que loolu gis-gis la ah, li nga wax noonu mooy perception la de façon tey boo laajoon sénégalais yu bëri. sénégalais lambda sénégalais yu nekk dans la société civile sénégalais yu nekk dans l'opposition dañ lay wax ne la justice bi pouvoir bi la fi nekkal pouvoir bi dafa am tendance di ko manipuler muy loo xam aussi bu ñu jàng buñ ko jàngatee ci yenn dossiers yi mënuñ ko miim muy dossier bu mel ni bu Karim Wade dossier bu mel ni bu xalifa sàll ak yeneen dossier parce que vingt cinq personnes ñaar fukki nit ak juróom yi nekkoon ci liste procureur créé Alioune Ndao yëpp ñu waroon leen déglu te liste bi jékki-jékki réer mër ba ñu dégloo Karim Wade fu ñu nekk parce que loolu yëpp nag li nit ñi ñaaw njortu mooy que état def ci dugal loxoom def ci def deux poids deux mesures beral ñi loxo bàyyi ñele justice bi am nu mu def ñoom fagagal leen boo ko seetloo sax ñu bari ñuñ doon lim ci vingt cinq yooyu tey ñu ngi ci côté pouvoir di ko défendre di ko waxal et après kenn tuddatul dossier yooyu kenn yëkkateetu ko Mm-hmm. de toute façon conclusion biñ ci mën tiire mooy loolu baaxul état kenn du ko doxalee noonu kenn du ko doxalee noonu parce que loolu dafay néewal justice doole parce que loolu dafay parce que justice benn ci jën yi téye réew la bu nërmeeloo rek lu bari dafay yàq moo tax ñu acteur justice bi tam war nañ quelque part di moytu di sóoraale gis-gis yooyu ñuy am te xam ne loolu aussi mën na yànqal ñoom li ñuy liggéey te loolu gënul. Mhm, d' accord monsieur Senghor li ni ndax du gàllankoor ak ak yelleef doomu aadama surtout ñenn ci euh, opposition bi nga xam ne ñu ngi leen koy xañ chaque fois bu ñu bëggee dem ci ay élections. xankañ dafay gàkkal ak yelleef doomu adama parce que d' abord benn ñàkk yemale la entre citoyen alors que ñi dëkkee Sénégal yëpp doomu aadama yi fi yeewoo yëpp bu ñu amee jafe-jafe ci justice dañ leen war a traité traitement boo xam ne. def ay yem discrimination lay niru mooy nga beral kii loxo keneen ki ci des nga bañ koo beral loxo jafe-jafe yi bu dee ci wàlli corruption ak yeneen ak yeneen dafay jur ay conséquences yu négatives ba ci ni ñuy doxalee euh, réew mi mm-hmm. te yooyu yëpp yoo xam ne baaxul la dafay rejaillir négativement ci droit de l'homme yi parce que ci droit citoyen yi directement moom la jëm te du dëgëral ko waaye def koy nasaxal mm-hmm. kon forcément dafay am benn ay influence dafay am impact dafay am conséquence yoo xam ne baaxul ci àq ak yelleefu doomu aadama yi mm-hmm. boo nekkee nguur nag yor doole ji te loolu dalul sa ko xëy na lool doo ko mën a percevoir bu baax mm-hmm. te li ci yéeme nag mooy souvent ku nekk opposition ci suñ nit ñi vivre ko le plus souvent boo ñëwee pouvoir bi jot nguur yaay gën a mën a néewalaate doole. d'accord euh, ñi wax ci ay révélation yu yees yi nga xam ne am na ci enquête contrat armement yi euh, nee nañ lu mu néew néew am na vingt cinq milliards de francs CFA de surfacturation bu ñu sukkandikoo ci consortium international de journal d'investigation bi nga xam ne ah, ñoom ñoo amaloo doon boobule enquête noo gisee boobule dossier te pourtant euh, nguur gi génne woon na communiqué euh, communiqué boo xam ne euh, rassuré wul kenn. noo ko gisee. waaw parce que li tax rassuré wul kenn mooy xam nga mbir buñ ko doxalee mu mel ni lu ñuy nëbb ñu dem ba ci biir ay nit jóge bitim réew bind ci andi yenn firnde yu leer ngeen bëgg ñëwaat di miim pour nga convaincre nit ñi dafay xaw a jafe mu andi problème même dafa loolu dafa jur sax problème boo xam ne dafa jóge ci ni ñuy doxalee suñu réew yi dëgg la mbiri armement mbiri secret la. du lu ñu war a waxtaanee fu nekk du lu war lu ñu war a waxtaanee ci pénc bi mais mais contrat bi andi na wax ju bari joo xam ne jàpp naa ne faw état bi communiqué ci te wax ci lim ci war a lim ci mën a wax li nga xam ne vérité yu ñu war a rétablir la mu leer ci boppi sénégalais yi mhm. mu soulevé nag problème yu bari bi ci njëkk mooy lu tax ñun scandale yu mel noonu bu amee suñu réew yi ak yenn information toujours ay journalistes yu jóge bitim réew ñoom ñooy ñëw leeralal ñu ko. dëgg la loolu problème la problème bu mag la. parce que dafa mel ni yéen suñ mbokki journaliste Sénégal yi euh, liggéey bi xaw na des ci seen côté ak recherche information bi. oui loolu benn problème la beneen problème bi mu posé mooy réew. ay loi ñoom ñooy déterminer ban information moo fa war a nekk secrète confidentielle et ainsi de suite yan la sénégal yi war a xam ak yan lañ warul xam du lu nit ñi war a décréter ni fii nii li mu li fi manqué ñu koy wax pour ba léegi mooy une loi sur l' accès à l' information. Mm-hmm. loi boo xam ne moom mooy permettre citoyens yi ñuy jot ci information yi def dañ ko war voté te état bi nangu ko voter mu ngi ko mu ngi denc loi bi boobu loi lu muy may dafay may citoyens yi xam information buñ soxla ci tel domaine fan la ñuy dem pour jot ko. te dañuy am droit ñëw laaj ko am information boo xam dañ lay wax ne bii de waroo ko mën a jot wala ñii ñii ñii ñoo ko war a mën a jot parce que dafa jëm ci mbirum secret réew mi hmm. mais même sax li jëm ci mbirum secret réew mi aussi bu ci état bi di liggéey di ko traité daf ko war di traité avec diligence traité ko dans le cadre de la bonne gouvernance parce que am na règle yoo xam ne quel que soit cadre bi ngay liggéeyee da nga ko war a fexee respecté mais malheureusement mooy li amul Sénégal te aujourd'hui loolu dafa sooxeel lu bari ci doxalin bi. Hmm. ba li gën a am solo ci ni ñuy doxalee suñu réew yi bitim réew lay jóge di ñëw ci ñun ñu door cee topp ci watit wi di daw ak di seet ay information ñoom ñuy door a jóg di weddi. d'accord euh, gis nañ dossier yi ni mel euh, Senghane le plus souvent sur le plan juridique du aboutir fenn parce que ñi di détourner di def ay euh, kii ay contrat yi nga xam ne vraiment dara leeru ci souvent ci nguur gi la ñuy nekk juridiquement du aboutir fenn da ngay gis sax parfois da leen di jëlee ci benn domaine dugal leen feneen mel ni ku leen di promouvoir lan moo tax souvent du aboutir waaw parce que li tax du aboutir benn d' abord dafay xaw a am lu mel ni sax conflit d'intérêt pourquoi parce que ki koy def day wax ne ci turi état bi la koy def ñi ko war a saytu ci turi état bi la ñuy wuyu ka nga xam ne bu jaarul yoon moo ko war a jël yóbbu ko ci ci yoon betey ci état bi lay wuyu donc le plus souvent day nekk question boo xam ne ka ko war a jël yóbbu ko sax ci mbirum yoon du ko yóbbu. Mhm. parce que moom buy bu yóbbu amee sax moom mooy xool lan lay yóbbu ak lan la dul yóbbu. donc loolu du du yomb mu am suite. maintenant li am ci yeneen réew yi te ba tey amul fii mooy. organisation yi normalement dañoo war a am pouvoir mooy organisation société civile yi comme ñun dañoo war a am pouvoir yenn dossiers yi yenn domaines yi bu amee coow ñoo ñu mën a constituer wu partie civile dem saisir justice. Mhm. pour que justice leeral ko mais loolu aussi mooy li amul fii Sénégal donc comme état bi mooy buur di bumi le plus souvent coow li day am rek mais après dafay daanuwaat te du leer c'est parce que état aussi li clarté li koy andi toujours mooy kiy des ak ki koy contrôler bañ a bokk buñ mënee bañ a juboo mbaa ñu bañ a xamante sax moo gën boo amee dispositif yu mel noonu en mën nga dem ci clarté si yooyu mooy blocage yi nekk ci biir ay manquement yu nekk ci biir loi yi yoo xam ne dañ ko war a régler pour yu mel nii bañ a tee am et le ñu régler ko ñu détecte dispositif boobu mooy loi yooyu dafay régler moitié problème bi parce que kiy def def koy leer ne lii may def nii bu amee problème suba dinañ ma ci topp mais buy def te am presque garantie ne lu ci mënti xew dara duma ci fekk rek en général day defee nu ko neex. d'accord te loolu baaxul. Mhm. Senghane Senghor ñu ngi lay sant di la gërëm. ok maa leen di remercier bu baax. di leen sant di fàttali yaay chargé des affaires juridiques euh, ca RADDHO.